Nabou nanu xam nga xam nga dañu naan mbir moom boo ko boo ko suufalee mu suufee boo ko diisalee mu diis. du mm-hmm. Mm-hmm. effectivement ñoom nag euh, vraiment ci contexte bi dama leen di wax rek pour ñu jël au mot li nga xamante ne moom la opposition bi wax euh, notamment les leaders de de Yewwi Askan Wi e à aucun moment ci seen discours dégguma leen ñu utiliser le mot insurrection. Mm-hmm. Euh, vendredi Maymouna Bousso la ñu recevoir fi mu toog fii pas Assane toog wax ne moom journaliste yi di wax sax naan ay dañuy jëm ci guerre ak ay yooyu yëpp nee na loolu yëpp en fait direct déjà c'est une forme de communication orientée ñoom li ñu wax rek mooy danoo woote meeting. Mhm. woote méga meeting pour waxtaan ak askan wi ci li nga xamante ne moom mooy xew-xew wi jot na également que ñoom ñu noppi geeg tekkaaral gi ñu mën a am une une vie politique rythmée et puis surtout ñu mën a observer également taxaw seetlu li nga xamante ne moom mooy xew-xew mi à quel la ci moowu insurection dugg bu ci insurrection duggee rek mooy ne am na ci parti bi ñaari parti yi kenn koo xamante ne dafa wàcc ak yoonam et je rappelle que euh, li nga xamante ne moom moo jëm ci wàllu stabilité réew jàmm jeeg yooyu yëpp état moo ko war a assurer donc problème amul l'opposition est dans son rôle de s'opposer tout aussi simplement euh, comme ñoom ni ñu amee woon sañ-sañ ci ay jamono di ko def te defe naa ne à aucun moment maître Abdoulaye Wade terew leen ko woon ci ay jamono fii nag dans ce pays la wax dëgg-dëgg recul démocratique man ta weesu ñu toll foo xamante ne ay nit dañoo war a def seen liggéey opposition dajee méga meeting waxtaane nga yaakaar ne loolu war naa mën a jurum coow ci réew mi alors que c'est une manifestation qu'il faut juste euh, accompagner tout simplement encadrer assurer leen sécurité bi ñu war lépp ñu def la ñuy def te dem c'est tout aussi simple que ça après euh, gisuma problème bi et puis même euh, par rapport euh, au traitement bi nga xamante ne une certaine presse daf ko ciy def aussi ñoom à la limite ñooy orienté sax débat bi foofu mm-hmm. le débat n'est pas là-bas il ne s'agit pas d'une guerre il ne s'agit pas de bataille il ne qui est de pouvoir s'opposer tout simplement donc il y a pas de problème dans ce pays il faut qu'on arrête de transférer les problèmes là où ne sont pas ñoom itam nee nañu dañuy def seen riposte méga meeting waa dem leen meeting fa leen neex amul problème loolu mooy loolu mooy taala démocratie bi bu ñuy meetingee ak APES yéen dem leen ngeen ngeen meeting maka APES non non terrain Kër Massar terrain Yékini de nab hmm. bu waa Yewwi Askan Wi meetingee ak APES dem leen ngeen meeting yi mak APES problème amul bayal bayal la rek yéen ñi bu ñu nekkee fii dem leen te bayalu Samba Khoudia Badiane ngeen def seen ngeen def seen méga meeting ñu encadré leen assurer seen sécurité ah foofu la nexee nag bu boobaa dëgg-dëgg nag fii nag daanu mën a natt mbooloo nag démonstration de force waaw te bu pour mu gën a leer kaay ma wax la bu kenn sol t-shirt bu kenn sol casquette bu kenn sol dara na mbooloo mi génn naturellement ñii génn naturellement wuy ji ñii génn naturellement muy ah démocratie gën a taaru loolu nag. Mhm. problème amul dara xewul yaa ngi dégg sagar xeeñu dara xamul. déedéet. mais pourquoi problème war a mën a am ci opposition dafa war a génn def mani def def manifestation où est le problème même si c'était une marche boo xamante ne ay nit ñu bari la ñoo ca am. Mhm. te defe naa ne ñoom mesurer nañ sens de responsabilité boobu sax loolu moo tax ñu woote méga meeting taxaw. waaw kon xanaa kon terme méga bee leen ci déranger dans tous les cas ñoom méga bi bu ñu ko waxee. ñu ko waxul day méga. ah giga gi la waaw mais nag il faut ñu comprendre ne euh, vraiment pour man nabu dara warul am fii et même la communication ne devrait même pas être orientée sur sur ci loo xamante ne. Mm-hmm. dafay dafay maanaam wane na sax na xëy na violence war naa mën a am ci réew mi. violence li koy indi rek mooy ñàkk doxal dëgg li pas asan wax bu dëgg dee dox rek état def yoonam ni mu waree ñu respecté lépp loo xamante ne ku ci nekk sañ-sañam la ci réew mi. Mm-hmm. coow du am dara du xew. nañu leen accompagner encadrer leen ñu def seen méga meeting le lendemain dañu prévoir ay série de euh, manifestations don ci dëkk bi ak fu nekk fu mu ci mënti doon it boo xam naa ne ñoom ils sont tellement bien informés que bu ñu xamee itinéraire kenn ku ci nekk ci ñoom nanu leen accompagner aussi pour l'exemple de la démocratie et pour la beauté de ce pays-là qu'on comprenne que l'opposition ou s'opposer fait partie des règles démocratiques de ce de ce pays fii la ñu ko fekk fii la ñu koy bàyyi nit ñi ñoom dañoo opposé wu ba falu nit ñi dañoo wu ba jëlee leen fii c'est tout aussi simple que ça il y a pas de problème bu fi am amul donc aujourd'hui euh, li nga xamante ne moom mooy xewi ji ci ces deux ou trois prochains jours à venir pour moi li nga xamante ne moo jëm ci wàllu jàmm mi réew mi stabilité réew mi insurrection pourquoi luy insurrection sax insurrection le mot est tellement fort mais pourquoi chaque fois que génn war a am rek ñi ni dañoo war a tiit insurrection organisée déedéet mais ñi dañoo war a tiit daal parce que une fois que tu utilises ce mot rek les gens vont ah, attention donc ce qui fait que finalement nit ñi ñi war a xëyu liggéeyi góor ak ko côté marché joor ak yooyu seen ay activité duñ dem liggéey ñi war a xëy dem di gérer ji ci administration sénégalaise bureau yi ak di doxi seen yitte duñ ko def ñi xëy war a xëy dem daw yi dépasse duñu daw yi dépasse nit ñi dañu war a toog tëju barricade wu parce que parce que daal manifestation dafa am du sax manifestation parce que méga meeting dafa am waaw léegi où problème c'est-à-dire que il faut que ñu respecter rek les règles de la démocratie bu nu ko dee def jàmm day am ci réew mi parce que coow du am dara du ew je pense mhm. que ñoom ils ont été à temps place de l'obélisque wax dëgg yàlla foofu itam amul place bu ko gën a rëy te feesal nañu ko ba tàyyi des centaines et des centaines de personnes se sont déplacées ñëw teewee si ci ay ndaje yoo xamante ne ba nu paree dama ne ñoom ñoo dajale for këyit yaak yeneen ya ca topp ñu ñibbi mu jeex mhm. xew na Kër Massar yaayu rien ne s'est passé donc bu waree xewaat suba également nañ leen encadré te may leen ñoom sañ-sañ googu ñu am parce que sañ-sañ googu nag lañu am ci réew mi muy opposé wu nañ leen ko permettre ñu def ko leneen lu ci mënti amit qu'il prenne les mesures qu'il faut parce que ñoom ñoo ko wax nee nañu force restera à la loi mais li force reste à la loi nag nga am doole am kattan am armée am am police am GIGN am euh, ñoom ñëpp ñu ko accompagner la wax dëgg yàlla problème warul mën a am foofu tu dois juste les encadrer ak itinéraire bu mën a et puis ñu accorder leen le fait que danoo am sañ wax nag. Mhm. nañ leen ko accorder problème numéro un foofu autorisé ñu mënu ko def ci bërëb bi nga xamante ne xëy na foofu la ñu jàpp ne mooy gën a neex a gérer. Mhm. ñoom itam je pense que c'est des personnes assez responsables vraiment parce que j'aurais tiré sur l'opposition bu fekkonte ne gis naa à une occasion boo xamante ne organiser nañ fi dara après mu am ay coow lu ca mënte am li ci am lépp. c'est parce que dañ ko autorisé woon ah. te ñoom nag ils sont ils sont clairs dans leur discours avec ou sans autorisation dañu koy def kon nag autorisé yow mi nga xam ne yaa yor jàmm yow mi nga xam ne yaa bëgg jàmm te bëgg doxal jàmm bu fekkente ne dafa am ñeneen ñu nekk ci wet bi féete ci yow ne ñoom dañuy apporter la réponse politique par rapport à ça soit qu'il en soit ainsi nanu ñoom it dajaloo fële ca waa APR ak benn Bokk Yaakaar ak ña ñu bokkal ñëpp longoo yëpp ñu dajaloo ci seen i mbir ñu ñëw filmer leen itam teg bii teg bee démocratie neex ñii ñi nag nooy tànn te nit ñi nag ni nekk ci seen xol yi faaw ñu wax ko ma waxaat ko encore une fois coowaguñu ba gàddu fi matelas dindi nañu ay cin nag tëgg nañu itam ay bool mm. waaye matelas mer gàddu gàddoo ko te j'espère que duñu yegg fu ñuy gàddu gàddoo mat la mer gàddu. te demaguñu place de l'indépendance. déedéet la ngaa moo buntu également ci ay gir du dëgg. doo fa yegg sax xam ah, moom waa ji am ful la goo xam ne palais boobu ci kàttanu yàlla doo fa yegg. place de l'indépendance kay kenn mënatu fa accès. doo fa yegg doo fa yegg am na ful la boobu moom. ah moom moom moom de président président Macky Sall moo ne woon arrêté boobu Ousmane Gom defoon en 2011 dañ koy dindi su falo xam nga bëri na yoo xam ne président moo ñu ko wax ñun li ñu président man moom sama business li président wax moom ma intéressé li mu wax yépp ma gis ma bañ a gis looloo ma intéressé kàddu kilifa nag kàddu kilifa la du dëkk <laughs> ah yéen yéen a jaay ñun ñu ngi jaay. du dëgg noonu ah, ah Mbaye Anta wuyul Mbaye ah? ci gri ak yépp mu ngi koy wane. waaw moom kay. loolay àdduna. ah waaw mu ngi nii. ah lii 2012 2011 2012 la. 2012 réew mi vaar a tax dara neexatul. 2011 la sax lii. ca juillet 2011 xam nga li amagu fi. ayé ana xeer bi kon. xam nga li amagu fi lii du matelas bi. Mhm. matelas bi matelas bi. ana xeer bi. Mhm. Mbaye man ni ko bëgg naa lii nag non euh, Mbaye. tu ma mérite xar boo falal góor. c'est le meilleur réalisateur. mami ma ni ko mbay tu ma mérite. waaw mm-hmm. ah, mm-hmm. être mon mari c'est ça. du tere yaa du tere yaa mbay nga ne ko du tere. mbay du tere yaa ngi ci liste bi de <laughs> moom góorgóorlu rek yow. ah ñeme ko rek. mbay de bu ma duggee sax bu ma duggee te moom gisu ci boppam mu dugal boppam. kii beneen la nekk ay mooy yéen laa xaw la xóota illaa billaay waaye paasan baal photo bii nga may woon nag. Ali mbaa jàmm la. beneen la nekk beneen mbay jox leen ko. wuy mami may may ko kii waa ji borom kii. giri giri yi ñu dem ci oh, deuxième mbay émission bi. kilifa bi de ndekete beneen la dëkk. mbay. kilifa bi mbayanta mu ne. mbay ci boppam daa ñemewul waaj. mbay ñemew ko de. mbay mbay. yow jëla laa bi yow. matelas mer gàddu baa ngi nii. Ah, mbay nag des na foto xeer bi. boobu rek ñu dem ay yu u u. doj ba ngoog oh, lii xool sëriñ mbay caam ci wet gi. xam nga ne réew mi lii lii waroon nañu dépasser fii foo xam ne dañuy fàttaliwaat ay image nii nañu waxati dëgg. Est-ce que, est-ce que ceux qui traitent cette opposition de nos républicaines lan lay wax ci image yi. Mhm. moo tax en fait la benn dëgg fi am cest à que nguur bi ñu lool nii def ci am waxuma ñëpp nag amaan na am na ci ñoo xam ne respecté nañu Sénégalais yi mais ñu si ëpp respecté wuñ ñu faalewuñ ñu sax xanaa xamoo boo nekkee ci nguur da ngay yëg sa bopp. Mhm. da ngay fuuy doo jaw dara dootu la tëb pour yow. boo bëggee passeport tout de suite non on appelle diw boo bëggee oto tout de suite non appel kii mu jox la oto ba téléphone appel kii mu jox la iPhone 14 bu bees bi génn ah, parce que tout semble facile fekk yàlla moom dafa programme app affaire buy jeex doo ko yëg da ngay jékki-jékki mu ne kapet nga naan mais jeex na bu jeexee jeex na yàlla na rafet rek rafetal leen que ñu tàccu leen bu partez en grand mu jeex def nga ñaari mandat jeex na. mais troisième mandat bay waral yëpp yi xew nii yëpp jàppe yeeg ñàngal beeg dóore yeeg yëpp parce que. bëgguñu nga def troisième mandat. moo tax eh, d' accord. waaye mayaat ma mayaat ma photo xeer bi ngir yàlla kay waa ji nekk ci wet bi di fi taxaw. <laughs> mu ne mu ne mu ne mu ne. xam nga bii <laughs> action bi. non waa ji waa ji sol lu noir yi fi taxu mi. waaw <laughs> <laughs> am na am na. xoolal neexoon na nag. xoolal.